salaamaaleykum adduna salaamaaleykum waa senegal man bas Bari bagaas ah ci site bu mag bii nga xam ne macha allah tubaar fa kàlla laaw la cat subaana ma làmmiñ site bi nga xam ne nee naa la lu mu wul baaxul nee naa la lu mu dugalul baaxul macha allah muy 24 actu nee naa la nag ku ne xam na Bass Bari bagaas mi toog doom buur géwél bu mag bi ci Touba juddoo fi yeroo fi di doomu Touba di murit piir gëm Serigne Touba bis ñi ngi tey ah yu bes taq ay émission yoo xam ne nee naa la amul fenn ndax nag olof dani koo xamul noo koy def nam la defa tax te 24 actu yow xamuñu nun lay def ndax ñun ñu ngi ñu defa tax waaye bis ñi ngi tey képp ki commerçant wala nga xam tailleur bu mag bi wala nga xam ne jaaykatu tissu nga wala loo man di doon lépp gi ci biir am mën naa ko ci nga bëgg ma feeñal sa métier ci li ngay def ñu def ak yow émission ma ñëw ba sa biir kër seet si la yaa xam foo ko nammee ak foo ko bëggee ñu defal la ko adamal la émission yu bees tàq ñi ñëw spécial avec bas bari bagage wax amut dara xewut macha allah laaw la cat subaana ma lamiñ waaye nag ah Serigne Modou Mbacke macha allah balay si buri sëñ Mbacke maaram li nga def sa liggéey bi dañ koy rafetlu ah sa liggéey bi nga xam ne ci yoonu Serigne Touba wi rek nga ci dox nag li ngay wane lépp yoonu Serigne Touba la site bii daal dama la ñàkk koo seetaan heure la 24 actu ndax heure bu ngeen dugalee nit ñi dañ leen di bégee di leen tiitaroo di leen safoo dama ni la 24 actu yu bees tàq mi ngi ñëw préparez vous.